ah man de tey la tey la tey la sama xam-xam jeex xam naa ne bu ñu xëyee dégg ne waykatu Wally balaa euh, waykatu Pape Diouf yi ak fecckat yeeg tëggkatu Pape Diouf yi ñëpp léegi ña nga ca Wally balaa ko sekk Maria si may si bigé maar ah dana ma jaaxal de waaw ah damay ragal mu def ñaari groupe kay lii kay damay ragal mu def ñaari groupe kay. non dana garaaw lool Dakar dana yëngu moom. Dakar dana yëngu de. ah kon daal garaaw yow mu toll nii jàpp nga ne daal doo delluwaat ci Pape Diouf moom pare ngeen fa. jubóo do ma dooma tey bu ma soxla waa bu neex la te maanaam daal jubóo yaakaaroon ne jubóo dina amaat sa diggante Pape Diouf wala ah, ah sama dooma ko sa diggante Pape Diouf laa wax maanaam xalaatoo ngeen nga delluwaat yow yow ak Amethou ak ak ak Mbaxane Seck del wat ci pap Diouf parce que bu ngeen ko bàyyee ni lu bax ni lolou bu ngeen ko defee mu ñaaw nag bu ngeen bàyyee pap Diouf mu ñaaw de wax dëgg yàlla Pape Diouf bu waré way tu muy waaye ah ah waaw ah itu, bépp modèle bu bëgg mi ngi doon dox di neex te ñun boobu liwuñu. dana ko mi ngi doon dox di neex. grand kon xaar ma bàyyi la xaar ma woo gaay maa ngi lay jëlaat. waaw. non man de lii ku ma ko waxoon du ma ko borom superman love su ngeen moytu dina dem fayland parce que bu fekke ne papa ndjay cu dafa bàyyi eh. ah euh ki da eh, teug kat bi sek sekk aw kat bi muy musa Diouf bàyyi yaakaar naa ne dana dem fayland bu moytu parce que ni gën am importance ci kaw podium bi ni gën am importance ci way bi fim mu ñoo bàyyi té ñoo ñëpp man ma ngi leen di gis ci kaw publicu gu bala ko sék papa ndjay ju mom du ben yoon du ñaar yoon tassa ak mom foofu du ben du ñaar wa papa ndjay way way papa ndjay ci waay ngi lay ziar la ngi lay raw bu baaxa baax mais papa ndjay man musuma xam ndeké yow demo Angleterre da nga bayyi Pape Diouf wala Pape Diouf moo la man kay tooñu ma kenn damay wax rek man dëgg rek laay wax non man kay tooñu ma kenn damay damay wax rek mais grand mais grand ci loo ne fi mu toll nii kon yaa ngi sa yëfi bopp ah. Ah. ngi sa yëfi maanaam yow nekkatoo fenn fi mu toll nii nekkatoo ci benn groupe dugaluma la dama lay laaj ci ban groupe nga nekk actuellement. parce que maa ngi lay gis yaa ngi baal si Wally balaa ko sekk di baali di baali Kéba. déet mais gisuma la ci Pape Diouf de Pape Diouf tëgg na sam euh, euh, moo gi Youssou Ndour moo joué première partie bi Youssou Ndour joué joué deuxième partie bi gisuma la fa dégguma la Angleterre gisuma la dégguma la. da ngaa joué ji woon ah, yor séfu bopp. déet mooy Papa Ndiaye nag yow yow boobu ba léegi maanaam Angleterre ba léegi nii ba Pape Pape Diouf see Angleterre ba léegi laa la gëj a gis grand ah doon ma xanaa deux mois trois mois ba léegi nii baali woo baali woo Pape Diouf mi nga xam te ne yow ci foofu nga nekk yaa ngi sëy bopp mais daal di nga di nga baali waali parce que waali moom gis naa la fa Kéba Seck xam nga bérki dée mu tase na fa maag yow ngay génn may dugg ah waaw te jour boobu xam nga Pape Diouf mi grand baaro da ngaa bëgg da ngaa bëgg a dellu dellu dekkal dekkal groupe bi yàgg Amady Badiane parce que Ameth Thiou sax Ameth Thiou moom bàyyi na. ah. ah. waaw mais bu dee da ma ne bu dee fekkee ne yow da ngaa da programme a delluwaat ci ci ci ci mariage kay ngeen wax ma rek. waaw yeneen magu aar bi de tey de fu fecc fu fecc toll ci réew mi fu fecc toll ci réew mi war nañ laa jox àllarba bu dee góor ñi yow Papa Ndiaye bu dee jigéen ñi Ndeye sama xarit la maa la wax loolu bu dee jigéen ñi moom Ndeye la waaw non sama xarit lan séeri majji majji sama waay la mais mais grand mbaa yëg nga ne yëg nga ne Moussa Diouf bàyyi na seen awukat bi yëg nga ne tamit Mbaxal Seck tamit bàyyi na bàyyi na Pape Diouf barke sayidina Muhammad barke alquranul Karim musa Diouf bayina na wax mais loolu nu ngeen ko meuna defé pap Pape Diouf kay grand ak yow tamit la wax yow noo meuna baye en tant que grand danseur bu yow baye ah ki tamit num seuti musa Moussa Diouf bàyyi tamit dafa ñaw amé ci baye buuse këcëb moom daanaka ci tanku baye la nek parce que buuse këcëb mi ngi ni déggatul ko mo wax waxi pap Diouf restaurant bi mu wali bala ko sekk la fa def mom mom dafa tel a nangu yak bi mom xamna na ne won na juboo ak wali bala ko sekk maria sin may sibike ma billahi lolou aussi tamit dafa dafa ñaaw c'est vraiment honte de ngeen li Papa ndjay wax man xam nga ci preuve rek lay dox Papa ndjay ci neena Angleterre ba legui ni la la wax demul ci pap Diouf kañ la pap Diouf teug Angleterre après koor gi la après koor gi la pap Diouf teug Angleterre ba tebeski nan ban waaja tam xarit demul ci pap Diouf parce que won ko Angleterre lolou bokku na ci liko gëna mer lo mu bayyi ki di Papa ciou hmm ak Canada demul Canada demul Angleterre kat bi ak awu kat bi ñu Angleterre ñu Canada li leen gëna a merloo loolu da cee bok parce que mënu ñu comprendre aljuma ñu and ak pap Diouf samedi dimanche ñu and ak pap Diouf pap Diouf di voyager di leen fi bayyi ñepp xam nañu tukki ni mu nexé ndax bo ci wul xaaliss bi di jëlé avancement waxtan wax deug ci la lii moo waral tey ñoom ñii tey ñu bàyyi boobu ba léegi nag buy waal yi di tëgg da fa gis Papa Ndiaye cu wala nga gi wala Keba sekk mu dem fa li muy dem ci ci waal yi moom bëri na moom Papa cu moom xaw ma nga ndax parce que Amady bu leen fàtte ne copain la ñoom ñaar ñoo fowandoo ñoo defandoo lépp Amady Amady Badiane di fekkeel waali balaa ko Seck kon réeré wut ak Papa cu da ngeen xëy suba nga gis ko ci kaw public gu ah waali balaa ko xam naa ne buy demaat Gàmbi moom wala muy dem demaat Europe Papa Ndiaye ci duñ ko fi bàyyi man maaraat yi peuple maa leen informé lii te lii nii lay demee léegi nag Papa Pape Diouf moom jeexal na desetul kenn fecckat bu mag bi dem na Papa Ndiaye Ametou dem na Ametou mi ngeen doon tiitiroo mi lay tey VIP yi duggoon fii doon wax naan waaw Ametou jóge na ci waal yi léegi ñëw na ci Pape Diouf Ametou léegi bana Ametou bana bàyyi na de man kay preuve laa leen di tegal ci kaw taabal ji dee ma déglu di ma topp parce que man sama information day leer gone du ko dindi mag du ko dindi information yu leer nañ lay teg ci table ji waaw Pape Diouf amatul fecc kat kenn moo ci des muy ma xujja xale bi booy bi bi nga xam ne Papa Ndiaye la doon roy ak Amathou moo des fi mu toll nii te moom demul Angleterre demul Canada maanaam Pape Diouf bi muy dem Angleterre di tëggi ak Canada yóbbuwul fecc kat yóbbuwul fecc kat de yóbbuwul benn fecc kat demuñu benn fecc kat demul man maa leen wax lii. léegi nag ñoom nag li ñu def nii nag neexul ba neexul tamit ñaaw na de parce que lii bu ñu ko defee mooy que ne Pape Diouf boo moytul day dem fay laal la Pape Diouf boo moytul day dem fay laal la parce que bu fecc katam yi demee am na cuuraat Papa Ndiaye nga xam ne nii xorom ñoom rek bu ñu rek xorom lan di ay ancien xam cu xam carara miin lépp mën a yëngal public ñooñu bu demee ci Wally Seck mbaa mbaa yéen àdduna bi du tukki Papa Ndiaye Diouf ak ak ak buñ delluwaatee buñ delluwaatee ci wàllu balaa ko sekk mariage bi may sa digg maar gara gars yi loolu mbaa mbaa loolu ban public mooy attan loolu gars yi dama leen laaj ban public mooy attan loolu ah gars yi Pape Diouf yi demee ci wàllu balaa ko sekk ban public mooy attan loolu léegi nag damay bañ li tax may alerter damay bañ ñuy tuumaal wàllu balaa ko sekk wàllu balaa ko sekk woowul benn artiste defu leen dara ñom ñoo fé fee sentiruñ seen bop banan buñ bayé nak ay musiciens lan wali bu len soxla da len jël point salam wali bu len soxla da len jël de lolay dëgg té man ma ngi di gis ci publicu wali bala ko sék maria si may sé dige ma ma ngi fay gisee waaw bismillah ziar na lepp jam nice tey buur waaw buru tan ci waaw waaw bisimilah waxal mhm. dëgg la waaw dëgg la waaw dëgg la Mm-hmm. Mhm. waaw waaw waaw waaw dëgg la dafa leer waa léegi mën naa la mën naa la laaj benn affaire rek mu gaaw doo dama la bëgg a laaj rek ñu résumé rek mu gaaw maanaam maanaam bàyyi gi nga xamante ne nii moom la Papa Ndiaye Thiou bàyyi ak Moussa Diouf ak Mbaxane Seck maanaam loolu ci coobare waaw waaw mhm. waaw ah waaw Très bien. dëgg la loolu dafa leer ah du du nga ko léegi nii déglu nga sànq waaw waaw xanaa xanaa xanaa xanaa amoo compte TikTok yow nga duggee ci duggee ci waaw duggee ci kay waaye que duggee ci duggee ci li ngay waxee am na importance duggee ci. waaw duggee ci ma jël la sa tur nga bind ah waaw baax na maa ngi ay xool aywa jeex na tàkk loolu moo gën quoi loolu mooy dëgg parce que tamit mbir dafa war a leer waaw kaa moom dafa war a leer parce que Sénégal ah réew mu nekk dafa nekk réew mu doy waar waaw neexut a waxee nag gars yi tappate leen live bi réew mi neexut waxee waaw yàq fi nit comme bonjour waaw yàq fi nit dafa yomb ci senegal bi ñu nekk waaw léegi nag kii dugg moom mooy soldaaru Pape Diouf moom mooy nekk ak Pape every day moo dugg nii mooy buuru kan buuru nii naa la waaw. sëñ Bara maa ngi lay fay. buuru maa ngi lay ziar baax waaw. dama la woo téléphone. waaw ngir wax la lu leer. waaw. boo gisee ma wax la mooy. waxu Pape. waaw Pape Diouf. waaw waxam man dama la ñaan dama comme ni ma la wax téléphone léegi dama la ñaan. Mm-hmm. nga bañ a dugg ci am ndax Pape Diouf amul kenn xaar ma yàlla kenn. waaw juuf na. Pape Diouf kenn. dëgg la. liggéey la xam. yaa ngi dégg. duggul ci benn détail. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Pape Diouf kenn jàppalewu ko. Mm-hmm. kon ku ne dafa am problème ak Pape. waaw waxul li am day fen. Ah yaa ngi dégg. ku ne dafa am problème ak Pape waxul dëgg day fen. Mm-hmm. yaa ngi dégg. dëgg la. Pape muy muy ñëpp génération consciente ñëpp ku nekk dafa laal teranga yaa ngi dégg. waaw man de yàgg naa dégg lu mel noonu wax dëgg yàlla yàgg naa dégg ñu bëri ñu ne Pape Diouf de may na ko nang may na ko nang waaye bëggul ku ko wax. wa wa wa xaar waa xaaral ma expliqué la. man moom damay wax euh, li ma dégg la dama ko dégg. waaw sëñ Bada waaw. Pape Diouf barki démba barki démba jeudi bi passé. waaw. jeudi bi passé. jeudi bi waaw. dafa jël Demba War. waaw jël Momar. waaw jël Prince. waaw yóbbu leen Zénith. waaw. Zénith Sidi Diop bi. yaa ngi dégg. Pape moo leen yóbbu. wala Matar Diop Pape moo leen yóbbu Zénith. Zénith Sidi Diop. waaw Pape Diouf moo yóbbu Demba yóbbu Demba Prince yóbbu Momar. ah mais lan lay yóbboo ñooñu moom te moom Pape Diouf bi muy dem Europe di tëggi yóbbul fecckat bi ak tëggkat bi ak wa ak xam nga mais xam nga gis nga si milieu showbiz. bi xoolal nit ku ànd ak Pape Diouf ku yaakaar ne doo xam nga lu tax. waaw Pape nekkul si benn lobby nekkul si benn propagande mhm. lépp lu mu defal nit ñi xaalis su propre moyen moom la ko defee. yaa ngi dégg. kon nag moom lu mu sentir moom moom ñi ngay wax nii ñëpp ku nekk rek dafa nar a yóbbu na la wërloo na la àdduna. Moussa Diouf Pape Diouf wërloo na ko àdduna Papa Ndiaye Thiou ko àdduna. Mm-hmm. ak keneen ak keneen ak keneen Makhou Dia Pape Diouf yóbbu ko yóbbu na yóbbu na ko dëgg la mais mais mais soldat wax lu garaaw nee nga nee nga Pape ban waykat kon moo nekk ci lobby bu dee Pape nekkul ci lobby da nga am waykat booy waxal wala. non dama ne. waaw nekkul si benn lobby. Pape nekkul si benn. mais bu nekk ci lobby fii. ci Sénégal non non non man dama dugg ci dagaay mais damaa ne. Pape li mu def li muy def mu mën lay def kenn du ko imposer li muy def. ah mais boo waxee dafa am ku nekk ci lobby mel ni contact yow dafa am waykat bu nekk ci moo tax. a yóbbu mais dama lay wax dama lay wax nekkul si lobby waaw nekkul xaaral nekkul si lobby nekkul si propagande. yaa ngi dégg. loolu tamit boo ko waxee day a doy waar rek. Pape international la. Mhm. yaa xaaral ma expliqué Pape Diouf international Pape Diouf ku yàqamti doo ànd ak moom. Mhm. yaa ngi dégg. da ngay ak moom ci ngor ci fulla ak fayda ak jom ci loolu la ñu mhm. kon nag su ma la déggee ngay wax ci Pape loo xamante ne vraiment amoo ci benn information wala ki la informé kooku day fenn. ci la informé day fenn. Pape Diouf defal na teraanga bu ne ay nit ci ñooñu ngay tudd ñooñu ñëpp. tey ñu fi dugg di ko waxal lu ñaaw ñëpp dafa dana ay teranga te te te ñu ñun mënuñu ko fayee fa amuñu ngor buñu ko fayee. képp ku fi dugg wax rek dégg naa la. sëñ Bara yow xam nga Pape. sëñ Bara da ngay yow soirée di gis Pape bu ko may si kaw scène day taxaw trente mille mu yëkkati xaalis bi ko jox àdduna. ni ma. wala may fen li ma moomoo ñee defal bëgg démb la ma defal woom ba ma ñëw yëkkati xaalis jox ma. waaw waaw mais mais kon kon kon sëñ Bara yow tey. jabaram tey bu amee ñuy dugg di wax si Pape Dara yow war nga xool ne ah. Pape Dara man damay leeral rek parce que cas fi mu toll nii fi mu toll demagul fenn mën à tout moment mën naa leer ñu xam kii la fautif lii moo tax ma dugal la man dama bëgg lu leer parce que man su ko waxul keneen wax ko ndax xam nga man ci euh, bi mais fekk ma yor kay xam nga man digguma waaw Bara mais man lu rek ma waaw Pera dama la ne. kusi ku dugg si live bi wax Pape dara ah. Mm-hmm. day duul maa la ko wax. dëgg la ñoom ñëpp Pape dama leen ciy teraanga dafa leen may jox leen xaalis bu bëri leen jox ay millions. Hmm? de des fois Pape dafa may woo dama buur ma dafa naa mu ne ma yónneel ma kii cinq cent mille yónneel ma kii un million. Mm-hmm. yónneel ma kii trois cent mille yónneel ma kii quatre kon ñooñu tey bu ñu dugaatee fii di wax dara kon ñooñu ay baadoolo lañu. ah mais bu suñ paree da a dégg Pape si suñ man li ma jaaxal li ma jaaxal li nga wax léegi naka la Pape Diouf mën a jëlee ay artistes yóbbu leen Bercy moom mu war a dem tëggi Angleterre tëgg Canada te bàyyi fi moom ay fecc katam ak way katam ak tëgg katam lii jaaxal na ba pare deuxièmement dañ buuru yow nga ne nga ne carrément ça veut dire ne Pape Diouf moom bokkul ci ay lobby moo tax mënuñ yóbbu ñu bëri mais kon dafa mel ni dafa am waykat yu boole ci ay lobby. mënuñ yóbbu ñu bëri de non dama dama ne waaw kenn du ko imposer li muy def. waaw mais yow da nga ne Pape bokkul ci ay lobby. ça veut dire kon dafa am waykat yu bokk ci ay lobby tamit lobby bokk ci propagande da ngay déglu. waaw yu bokk ci propagande ak ak non non non non dama ne ne gis nga tukki tukki yàlla moo ko yore. waaw tukki yàlla moo ko yor. Mhm. man tey man tey ni ma mel ci Pape bu doon tukki rek kon kon bàyyi naa ko bu yàgg dafa ànd ak moom ak ngor ak fulla ak fayda ak li ma am tey moom moo ko def ci yow da ngay ànd ak moom di tukki yow da ngay ànd yaa yaa may kon kon tey sëñ Bada dafa am loo xam ne dafa rafetul artiste bu dugg fii di nekkoon ci kii di wax Pape dara ci loo xam ne amul Pape du la dara man maa koy fajal sama bopp. waaw dëgg la. ma dama lay ñaan benn affaire nag. Mhm. nañu arrêté wax ji. ndax lii mu dem demee nii mun na ëppi loxo ay dugg ci live bi di wax Pape. léegi kaay ma nettali la man li wax. kaay ma nettali la man ma nettali la man li wax. baal wax la baal wax la baal ma wax la xoolal Moussa kii euh, sëñ Bada ku dugg ci live bi wax Pape yàgg na ma wax buuru yónneel ma kii un million yónneel ma kii deux millions yónneel ma kii cinq cent mille yónneel ma kii trois cent mille. Mm-hmm. te ñooñu tey mënuñu ko jàkkaarloo fii si di ko wax. yàgg naa ko dégg ba dégg naa. Ah, am na ñoo am na ku may oto. dégg naa am na ku may oto bu yàggut xaw ma kan la ci xaw ma que parce que moom bëggul ah? may na quatre cinq personnes génération consciente oto. neneen ko ne may oto rek déggee waaw. may na cinq personnes génération consciente. maam maane ci la bokk Pape Diouf may na ko oto maam maane. loolu yëg naa ko. xam xam déglu ma mais da ne Pape Diouf da ne bëggul ku ko wax si te ñoom te ñoom te mu ne leen ku ko ci wax di nga di nga a di nga jot sama jikko. yaa ngi déglu. léegi nag nit kooku nitu sutura la. nit kooku nitu jàmm la. nit kooku nitu salaam la. léegi nag kon lan moo tax gars yi dugg ci live di koy yàq noonu. pour lan loolu quoi. man a dama ci boole wax. képp mais est-ce que yow buur buur nga demee ni nga demee Pape Diouf yow nga nekk bras droit Pape est-ce que yow tey boo gisee ay feccukatu Pape Diouf dem waykatam dem tëggkatam dem est-ce que yow li gënoon rafet mooy nga dugg yow defar au lieu nga fiy nekk di wax sa wax yi ba pare ngay classe ngay classe beneen waykat parce que parce gis nañ ko ci seen Wally Ballago ko ci léegi yow nga ñëw dugg naan waaw non moom bokkul ci ay lobby bokkul ci ay propagande dafa mel ni yow affaire boobu da leen a gêné dafa mel ni effectivement ñom li ñu wax né lool non jotté pap Diouf day melni deug la dafa melni kon ñom li leen No sék no wala no leen waaw non non non non non Bara sëñ Bara doo ma déglu tuuti ah waaw xam nga tey man ak yow bu doon sekk dara ñu ànd te yàlla tax mhm. ma gis nit di wax ci yow dégg waaw sama ànd ak yow nekk dëgg Bara sama gis nit di wax yow feneen su may nit di dal ci kawam du ko tey ndax ànd may ànd ak yow gor la la waaw kon du dëgg. dëgg la. ah kon kon da ngaa juum kon da ngaa juum li nga ne Pape Diouf bokkul ci benn lobby bokkul propagande benn. waaw non non non non non xaaral dama ne la. non bu dee da nga juum rek da nga naan da nga juum ñu jàll ci leneen. parce que boo nee juumoo. fi nga fi foofu foofu boo fa bëggee taxaw di nga indi polémique. parce que polémique bi nga indi mooy ça veut dire ñee dem nañ ci public bu waali rek tudd nañ waali. yow nga ñëw duggee noonu. sëñ Barab sëñ Barab dafay xaw a ñaaw. waaw sëñ sëñ Barab. waaw sëñ Barab baal ma. waaw A bul ma dugal ci polémique gu ay yeneen artistes s'il te plaît ndax xamul tax man yareewuñu ma noonu. dëgg sama kilifa buggul sax may wax ci yu mel nii ndax moom yareewu ma noonu. Mm-hmm. Sénégal musique bi Sénégal musique dafa yaatu ku nekk da ngay. jël sa wàll dëgg la ku nekk mën nga jël sa wàll mais wax tamit dañ wax dafa am solo de parce que yow boo nee boo nee Pape Diouf bokkul ci benn lobby te Pape Diouf du propagande kenn dafay mel ni nga. dafa am koy waxal nag wax jooju dafa am ne dafa am ko moom nag man foofu laay waxee cest à wax bal la wax dafa garaaw parce que nit li nekk ci xolam lay génn nag wax dëgg yàlla te li nga wax dafa mel ni looloo nekk sa xol loolu yow li nekk sa xol loolu nga génne man foofu laay waxee quoi wax jooju wax ji dafa rëy vraiment wax ji dafa rëy parce que pour man lu luy defar mooy gën luy yàq Pape Diouf tey bu ay fecc katam demee way katam dem tëgg katam dem loolu baaxul ci Pape Diouf loolu mënta yokku Pape Diouf mais da koy delloo ginnaaw parce que Papa Ndiaye cu boo nee fecc ci Sénégal faaw nga tudd Papa Ndiaye te xale yi waral nañ ko jox àllarba comme Ndeye Gueye parce que ñoom ñoo fi xàll yoon boobu yoon bu maanaam ci fecc fu mu àgg ñoom ñoo ko fa yóbbu am na ñu leen jiitu nag ay àll sekk ak ñoom yàlla yàlla yërëm xaralaaj nag keneen ak ñeneen am na ñu leen fi jiitu fopp mais ci génération bi ñoom nañ ci xam kon tey amee cuub. ak Papa Ndiaye daan taxaw ci public bu Pape Diouf daan ko feeñ daan daan fecc tey nekkatul fa ñu bàyyi loolu ñaaw na ba pare loolu baaxul ci Pape Diouf man foofu loolu laa wax tëgg katam su bàyyee baaxul ci Pape Diouf fecc fecc katam awkat bi baaxul ci Pape Diouf man li laa wax maanaam fexee xool lu leen indiwaat moo gën di wax loo xam ne day leen di delloo ginnaaw day tax duñ ñëw parce que ñu ñëw avancement wu Pape Diouf la te ñoom Wally Ballago Seck waykat la su ko neexee bu gisee fecckat boo xam ne nii nekkoo ci benn euh, ki euh, club mën na la jël am na ci droit damay bañ rek bu ëllëgee ñu naan waaw nyom mooy recruter fecc Papa Ndiaye Thiou bàyyi Moussa Diouf bàyyi na Mbaxaan Seck bàyyi na quatre personnes te ay ponkal lan ay ñun koo ci jël boko orchestre bu parce que dañoo yàgg ci métier mi saf ci sàpp man lii laa wax ne baaxul ci Pape Diouf mais tey buuru tey da ngaa daanu nga parce que lii nga wax nii dafa ñaaw c'est vraiment honte nga wax dëgg yàlla parce que boo nee boo nee Pape Diouf bokkul ci benn lobby dafa mel ni dafa am ñooy gaaruwaale waaw kan moo bokk ci lobby nga loolu jar na lijjanti nga waaw loolu dafa jëral lijjanti gars yi tapoteel leen ma tapoteel leen ma live bi sama connexion bi neexul de. sëñ Bada. waaw nuyu naa la. noo def. naka moom sama connexion neexul de mu demee nii. tey moom sa connexion moom mooy loolu pour l' instant moom day dama ko dikk. neexul kay te moom mooy loolu quoi. vraiment. Bada. waaw Bada. waaw. Euh, Moussa Diouf moom moom confirme moom ni mu waxee confirme na ne moom dem na. dem na mais Papa Ndiaye Thiou ba léegi Papa Ndiaye Thiou waxul waxul lu leer de. ah dafa coupé Papa Ndiaye Thiou Papa Ndiaye Thiou wax ankay Papa Ndiaye Thiou koor gi avant avant koor gi ba léegi. waxul lu leer dafa daw dafa daw question bi dafa coupé. mais waaw mais déglu ma rek Sadio moom dem na. waaw mais déglu ma rek Papa Ndiaye Thiou avant koor gi ba léegi. Ah. feccul feccul Pape Diouf te mu ngi ci réew mi Pape Diouf a ngi Sénégal Pape Diouf bi muy dem Angleterre tamit dem na Angleterre tëgg fa dem Canada tëgg fa te yóbbaale wu leen ah moom moom moom. comprendre wax yàlla ñi nga lim. ñi nga lim yëpp moom bu ñu ñi nga lim ñëpp moom bu ñu ci Pape Diouf moom. ah ma day métti boo moytul day dem fay land loolu laa wax. ah Tamar moom mi ngi toog moom moom woowul kenn. non man te ñoom chaque jour léegi te ñoom chaque buy waale di tëgg nga gis leen fa. mais nag Bada. waaw Bada benn affaire am na waa kër Pape Diouf war nañu bàyyi bu ñuy wax di sànni ay tarak di gaar gaaruwaay naa ay lobby. non wax ji dafa mi amoon na fi benn vidéo wuyu ma rek Pape Diouf mi amoon na fi benn vidéo boo xamante ne mu mu naan bokk si lobby. bokku ci si góor jigéen. Pape mhm. Diouf mi amoon na benn vidéo baa ci internet boo ko mhm. tàppee di ko gis. dëgg war bàyyi di gaaruwaay naan bokkuñ ci benn lobby. loolu ça veut dire que am waxal man mais wax ji wax naan wax artiste yëkkati Pape Diouf

ñoom dañoo bon seen communication dara baaxul bi ñun fu ñu duggee rek ñu jàpp fa ñu sànni pig waa loolu la mooy loolu ah, la mooy diw bokku ci lu wala lu muy dee Papa Ndiaye wala lu muy dee Papa wala lu muy dee Moussa wala lu muy dee ñoom wala duñ soxla wuñu sax ñoom mm. yi wala jël leen non kii laa bëggoon tontu rek li mu ne wax rafetul rafetul ñoom seen ñoom ñoom wàlla bopp ñoom mënta muñ waaye ñoom seen ñoom jo maa nga laaj seen patron la ci Papa Diouf la wala laaj Azim moom la moom la njëkkee mm. lan la doo wax sa wax rek wala fi jar dugg naa ay bokkul ci la bokkul ci. Oh, wax dëgg yàlla ah, teg micro ku la ñuy wax bokkul ci la. mais loolu loolu day mel la ñuy wax daal Wally Seck. vraiment bi nga xam ne ñoom di gérer ba lan la. yàgg na dafa yàgg de. parce que lu muy maslaa xale yi mm-hmm. xoolal lu muy maslaa xoolal lu muy maslaa papa lu muy maslaa Sidi Diop waxal lu muy maslaa xale yi. ñoom xol bi waal am xol am. waal dafa fees instant waal dafa fees kenn soxlawul kenn waal dafa fees. ñu bëgg ñu leen sax ñu bëgg ñu leen man de bëgguma man daal rek laay nooyee mais bëgguma ko bëgguma ñoom gën ci kenn. Eh, ñooñu bu ñu ñooñu bu ñu ñëwee day gën a ñaax ñooñu bu ñu ñëwee nag day gën a ñaax. non non doon na sëkk non non doon na sëkk kon dañ koy lekk rek papa doon na sëkk eh, ñu ko duñ ko yokkal dara. déjà amuñu rek fi mu toll nii euh, njàpp jël na place am Amady nekk yaatal na jàpp. waaw soldat soldat Pape Diouf waaw. waaw bon torop Pape Diouf moom moo moom la. déglu micro yi déglu leen leen dal waaw Pape soldat waaw man sama connexion. Euh, gars yi sama sëñ Bada waaw sëñ Bada waaw. sëñ Bada. maa ngi lay dégg soldat waaw maa ngi jégalu soxna yi ñoom ils n'ont ils n'ont ils n'ont rien compris. Mm-hmm. yéen yéen a ko yéen da ngeen war a bàyyi seen communication bi ngeen di def. bàyyi non bàyyi leen ma rek naan bokkuñu àll bi. may ko may ko mu yeggale may ko mu yeggale may ko mu yeggale rek waaw. soldaar waxal soldaar waxal ñu lay déglu. soldaar waxal. ma rek baat. gars yi tapataleen live bi waaye tey maa bi may nekk bi neexul de sama live bi kii wul maa ngi nii maa ngi ziar waaw. tëj leen tëj leen micro yi xaaral soldat bu pare. soldat bu moo baaxul quoi. baal leen ma rek man man du

y' a problème Amina merci waay thank you so much merci beaucoup yi tapoté leen waaye tapoté leen ma live bu baax a baax a baax a baax connexion sama live bi demul de tapoté leen tapoté leen gars yi tapoté leen waay waaw tapoté leen ma doole waay s'il vous plaît waa team bi am na ñett tapoté leen nag doole. tëb tëb non réseau bi baaxul moo tax laaj bi yéegul dem sax mënu ma gis sax ci téléphone bi quoi lu bëri gisoo ko. ñaata la laaj bi nekk. parce que gars yi ñu wàcce boo quoi. man gaay yi len leen len bu baax siar na la bu baax baye na la bàyyi nga am jàmm lay nuyu bu hmm. baax mais daal eh, doy na war quoi vraiment li doy na waar quoi vraiment musique c'est moom bo demé parce que orchestre di tass doy na waar rek moom itul da ngay dem fay lan ah waaw moy moytul moom da ngay dem fay lan de Orkes ah, ay orkes, warul tas orchestre surtout orchestre bu mag warul tas billaahi parce que ñii ay ndaanaan la Papa Ndiaye Thioune ndaanaan la Ameth Thioune ndaanaan la Moussa Diouf ndaanaan la Mbaxaan Seck ndaanaan la ñooñu ku leen bàyyi dañ leen wuti te fu dem ñu jël lu nu taxawaa lu nu semé ñooñu mom, bu nu semé rek da neex quatre personnes ci te ñooñu ñëpp ay partaanam ah ñooñu ñooñu boo leen bàyyee mooy loolu de boo leen bàyyee mooy loolu de Aminata Casa Casamance xaw ma Casa Navé merci waaye thank you kontaan naa ci yow de Aminata yaay yonent bi sallallahu Aminata waaye merci waaye waaw Aminata merci thank you so much gars yi tey sama connexion baaxul de boobu leen tapote leen gars yi. maanaam. waaw dañ fay laaf bi taalaat ko ma xam. jaaxal na ma de boo moytul foofu laay mujjee de. ah loolu laa ci gis nga fay ko taalaa ba xam gaa ku nga fay gaa yi yéeg. yow moom am na naa ci yéen ñi. dee leen tappate nga yéen tamit waa Facebook dee leen dee laal j'aime di laal page bi di dóor écran yii ah.